الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بسم الله الرحمن الرحيم bokki jullit yu tedd yii fi nekk ngir jëmmi yàlla ak nangu dogalu sunu boroom ci li mu defal sëñ Tuubaa ñu di ko bëggee ni ñu koy bëggee ak fuñ mën a bàyyi ko ñooñi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bokki taalibe yi nga xam ne it taalibe murid lañu waaye kóllëree dox sama digg ak ñoom waaye duma seen wasila te ñooñu it bari nañ ci lool ñooñu it maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di jëme kàddu yi nag ci ñi nga xam ne man lañ doxale seen digganteeg sëñ Touba nga xam ne dama sañ a wax ak ñoom ak ku nangoo bokk ci biir mi man yaqbalu nasihata min ak nañu sant yàlla bu baax a baax a baax ndax lu gën a rëy sunu boroom sakk la te mënoon laa bañ a sakk li ci des tam mooy bi la sakkee mu def la mbindeef ngay nit manoon a bokk ci yeneen mbindeefam te defu la ko bi mu la defee ngay nit it mu mënoon laa def nga weddi ko mbaa nga bokkaale ko kon bu la defee ngay nit jib jullit wéetal ko loolu dara mënu ko gën a doonu cant sunu boroom nag lenn dong la soxla ci jaamam mooy mu gëm ko wéetal ko ndax weddi gi moom yàlla nu ci yàlla musal lam ci digge ñëpp xam nañ ko bokkaale gi it lam ca wax ku xam na ko waaye nag dëggi-dëggi alxuraan mooy yaxfiru liman yashaau wa yuazibu man yashaa lu fi nit ku baax am itam day fekk jëf na lam man waaye am na loo xam ne sunu borom dane maa ko yoral sama bopp te ki ma neex laa koy def wa anna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha alquran li muy yaatu yatu du ngeen fi gis loo xam ne day wax ne su ngeen ko defee am fadlullahi mu teg te ne wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasha loolu it amul fenn foo xam ne day wax ne su ngeen ko defee am ixti sama ixtisaas coobareem la ci wéyee fadlullahi nag mooy tiraanga yii nga xam ne mooy tiraanga tiraanga ku ne xam na ko ay tedd nga lépp a ngi ci biir waaye li ci ëpp fii la yem ci àddina wala xad aatina daawuda minna fadla waaye daa wax na mu ko defee def ne yaa jibalu awwi bi maahu wa tayra wa alanna lahu alxadid an icmal saabigaatin wa qaddir fi sard mu ne nag waamalu salihan inni bima taamaluuna basir wali suleymaan arriix guduwuha shahrun wa rawaaxuha shahr wa asalna lahu ayn alqitr wa min aljinni man yaamalu bayna yadayhi bi idni rabbi wa man yaziq minhum an amrina nudiqhu min azabi sair yaamaluuna lahu ma yashaau min maxaariba wa tamaasila wa jifaanin kaljawaabi wa quduurin raasiyaat moo tax mu teg ci ne imalu ala daawuda shukra waaye wa qalilum min ibaadiya shakur kon fadlu moom li ci ëpp fii la nag te euh, moom day ñëw fii la ëpp ci mbir ma nag di la nekk àllaaxira moo tax yal nu yàlla dimbali yërëm nu baaxe na te atte nu ci ak baaxam te bañ noo atte ci sunuy jëf sëriñ Tuubaa mi nga xam ne bis bii day bisam bis bu ngeen fi gis dafa am lu tax bisub tabaski Seydina Ibrahim mu gént inni ya ara fil manaami anni ya azbaxuk kooku yi di doom ju diggal waajuram ne ko ifal ma tu'mar sa tajiduni insha allah min as-sabirin sunu boroom nag bi mu gisee ne ibrahima moom liñ ko digal lay def mu gis ne doom ji luñ santaane ci moom nangu na ko moo waral mu jot ko ci am xar looluy tëbaski tëbaski buñ ko seetloo mbégte rek la ak feet ndax ñaare rakk lañ ciy julli daal di dem ci kër yi rey ay xar doo ko suul doo ko denc da nga koy lekk moo tax sëñ Tuubaa ci xutbatul iideeni bi mu def te mi ko defee ci ñaareelu atu gànnaaram ma ngi cay wax ne inna haada al yawma yawmu aklin wa shurbin wa itq li wajhi man jaada bi fatqi rabq loolu def ne bis bii bisu mbégte la bisu bisub lekk di bisub naan lu bisu moom sa loolu moo tudd feet kon ama masasin nga xam ne juróomi at la fi nekkaat gannaaw bi ci la wax ne bi ma jaayanteeg sunu boroom lam ko doon jënde fukki fan ak juróom-ñett ci safar saa yu ñëwee ñu nattoo ma lu gën a metti la ko jëkkoon waaye atum ren mii nag ci lañ ma xamale na ma saa yu ñëwatee dañ lay fay xasida googu ci la wax ne allahuma ya man ajabani wa radita anni wa nafaatani wa baarakta li ijaabatan wa ridan wa nafan wa barakatan lam yusbaq ila mislihi wala yusbaqu ila mislihi وسلبت إلي في يوم خطي هذا الخط القرآن ولسان العرب ومنافع الدنيا والآخرة فيهما فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه القصيدة أحب إليك من كل موزون قبلها شيء يمدف ممسجي foofu allahuma ya man ajabani alifa fi nekk wa radita anni ak raa wa nafaatani ak noon la wa baarakta lii ak baa fekk na li ko waral bi mu wootee ba bëgg bis boobu ba mu nar a wax lii dafa am ci taalibe ci njaareem ku jógoon dem ba ci àllum njaareem bi di doxantu mu fekk ak lëpp gu tëdd di lëg gu rafet ci moom mu daal di koy jàpp bi mu ñëwee mu andi ko ci sëñ bi sëñ bi ne ko xanaa lëg yi di fii ne jaaxle na lool na sori nay bokkam nii nag laa meloon ci bi ma nekkee ci loxoy tubaab bi moo tax bi muy bi muy sant yàlla nag ci bis boobu mu fab ñeenti araf yooyu tey turi yàlla muy al arnabu arnabu arnabu da ci ñëw mooy ajaabani wa radita anni wa nafaatani mu daal wax ne bis bii ci la ma sunu boroom maye lu ma bëgg may ñaan bépp taalibe na ma ci santle yàlla ci di berndeel li ko dale ci gëléem ba ci ganaar walla li ko dale ci ganaar ba ci gëléem wax lam ci wax lépp mu teg ca ne néew ma day moo gën bisub tabaski waaye yéen moo ko gën ci yéen dafa am ko teg xam na ko moo tax ma jëkk leen a nettali ne tabaski bis la buñ jote woon baay bu dégg ndigalul yàlla ak doom ju dégg ndigalul baay bañ génnee ñu tàmbali siiwal naan tabaskiwaat sëñ bi di ko woo leen ba ñëw mën a leen su ngeen dee wax tabaskiwaat day nekk bidaatu wala mu mel na dama sos leneen waaye xaar leen ma jox leen bis dee leen ko wax màggal màggal gi sëñ Tuubaa ko tudde ñii ngi ciy wax jàng ci alxuraan ñii ngi ciy wax lépp luy nuru ak jaamu yàlla waaye bisub iid du bisub ibadatu bisub aadatu la ayit feet la bég ci ak terle ci ak maye ci jàmm moo ci gënal sunu boroom sosaat ci ak jàmm shahru ramadana yàlla da koo digle fa man shahida minkum shahra falyasum ak lam ca wax kon xanaa day mel ne bisub korite bi ku am positif am yéene ci yàlla man nga ne man de doyalaguma damay woor waaye niñ ko niñ ko defee farata ci weer wi dañ ne boo wooree bisub korite dafa araam koor dafa araam ci bisu korite te moo daganoon ci koor loolu sunu boroom def ciy jublu ne bisub mbég la ak bisub fàttaliku yàlla ak sant su ngeen gisee itam sëñ Tuba santaanewut lii ci bisub ñibbisi bi mboolem nitug yàlla dale ko ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam taarixul islaam yi tàmbalewut ci milaadu rasul bi yonent bi juddoo tàmbalewu ci tàmbalewu ci aamul fatxe mooy bi yonent bi amee lim bëgg not ñëpp ba yéefar amatu mi ngi ko tàmbalee ci bim jaaxlee ba bëgg a rawale lislaam mu jóg jëm madinatul munawara ànd ak Abu Bakrin ñu defee ne bala ñu àgg ñu jot leen kon bis boobu mooy amul hijrati mooy bi lislaam néewee doole ba muy gàddaay di dem ci lañ tàmbalee lislaam ci lañ tàmbalee loolu li ko waral mooy nit yàlla yépp bis biñ amee contrat ak yàlla fa la ñuy tàmbalee mbir mi yàlla dogal addina yi dëggal loolu mooy bépp contrat fii mu ne buy am duñ wax ne balaa contrat bay tàmbali mooy bi liggéey bi àggee dañ naan contrat mi ngi dale ci bis bii ñuy signé contrat loolu mooy bi jaam bi amee ak dogu daldi koy seereel borom moo tax màggal du bisub dellu si bisub dem la waaye li muy niru niru naqar nag mooy bis bi nga xamee ci la ndax man ngaa dem te doo dellusi si sallallahu alayhi bi muy dem lu ko ci fekk da ko koo jaral lu ko ci fekk buñ ko dabee faat ba kanam da ko ko jaral bu dellu see mu gën a tije moo tax nag fi nga xamee ne nag yow nee nga sunu borom de maa ngi jëm ci yow te lu ma ci fekk jaral na ma foofee la sunu borom di tàmbalee moom di la fay loolu tax màggal di bisub Sëriñ Tuubaa itam ngeen di ko fàttali ko te di ko bàyyi xel ndax képp bu fekkee ne. taalibe bu ko yakaar bu ne lala ca ba xam nga ko lu gént du lépp luy naxe day lu leer a leer a leer koo xam ne boo jàqee sa xel dem ci boom nga yëg yow ni la yàlla walloo boo tiitee am loo ragalit nga yëg ni la ko yàlla defale ngeen gis itam fépp fu taalibe dem ay nit rek ngeen yore xel waaye booy def loo làmb mu yomb loo dugg am ca tawfeex la la ko may danga ko war a kon sëriñ Tuubaa moom la ñu am ndax mooy sunu cër ci biir lislaam di cër bu ko màcc itam jëfal na sunu boroom loo xam ne li war ñëpp ñëpp di ko def da koo def ni mu bu dee ci woy nag mu gàllaat boppam luzum ma la yalzam lahul tazamtu ma alayya yalzamu wa raada li luzuma ma la yalzamu noonu mu ko defee ci woy nga xam ne dafa am noo xam ni kenn dellu ko nit ci woy te jafe lool xaside yi mu def gannaaw géej gi yëpp ak biir géej gi noonu la ko woyee noonu la fa bay ci xeeti lu mu war lu diggam ak boroomam loo xam ne gàlleesi ko ko ba muy fanweeri mbir ciy defin ak ñett bokk na ca dara du ko mat mu faxas ko lu ak lu metti metti nee na du jañ lor du ne it nit mukk andi am lay wax du dox di wëcc ay loxoom lu yëngu rëy rëy du gees loolu manees na koo topp di ko topp di ko topp loolu di ko topp ba muy fanweeri fan ñaar fanweeri mbir ak ñett dafa jafe moo tax dafa mujj ne yogg rek ndax lu ne nee na du ko def mu dellu mboolem yi nga xam ni bañ ko yóbbu ci tumuraanke ga ci réew yooyu meññeet ya fa am mu gis ko nga xam ne ñaar fukki meññet ak juróom-ñett la mu daal di waatal yàlla de ko benn meññet du ci dugg sama gimiñ di di jënd ab ceeb bar ci loxoy ceeb bar ci loxoom ci ceeb moom lay fa baxalal ko boppam te fan la ciy dund loolu kenn tëggu ko ko moo tax sunu borom ne wa jazaau sayiatin moom sayiatun misluha kuñ tooñ nga fayu sañ nga ko waaye li nga xam ne digalu ko kenn nag waaye bu ko defee nag xam xam yàllaay kan mooy moo tax ma ne fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah jazaawu ak ajru ak sawaabu wala tuyaaba la koy firee waaye bokkuñ jazaawu mooy li la yàllay fay ci boo ko jaamoo boo defee lim la digal bàyyi lim la tere waaye fu ne dana ko fa seet loolu moo tudd ak pay loola moo di sooy jënd dara ne ko jaay ma kilo nangam yaa ne kilo mu ne la nangam lay jar foofu dafa bari yuñ fiy lijjanti ndax su la peeseelee lu yées kilo da ko naan duma ko jël waaye xaalis bi ñu koy fayee boo amee dara lu ci ñaaw dala naan sa xaalis bi dañ koy topp di ko topp ba balaa kenn ku ne wàccook morom ma day jot waaye ba tey baax mu des nag ajuru ajuru mooy li nga xam ne yàlla tegu la ko waaye ginnaaw boo defalee yàlla lim la digal la ma nga nga man nga def ko ca nga dolli ci nag yéene li yàlla fay nit ab jaamam ci yéene moo tudd al ajru moo tax ma ne fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah loolu tegu la ko ndax dala ne bu la neexee fayul waaye boo muñoo nag man yàlla duma la fay ajuru laa lay jox ndax dana wa jazaau sayiatin kon sayiatun misluha waaye fa man afa wa aslaha néewut fa jaza woo def ne fa ajruanullah gis nga ni ajru ëppe jaza sawabu sawaabu nag ñëw ëppe leen ñoom ñëpp noonu moo di la la yàllay teg wala sama roomi jaam di la ko teg nga muñ li yàllay jox nit ab jaamam ci muñ mooy sawaabu wa usu fi sabili wa qaatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udxilannahum jannatin tajri min taxtiha al anhar sawaban min indillah moo tax am na fu sëñ Tuubaa di wax ci masalikul jinaan ne ahlul bala laysa lahum miizaanu wa laysa yunsharu lahum diiwaanu bal innahum yusabu ajruhum lahum sabban bila bahsin gadan bushra lahum kon yett yooyu facab jaam war jaar ak boroomam dafa jaar ndigle yépp da def lam man ak lam mënu tere yëpp mu ba jóg nag yaraat boppam loo xam ne kenn yenu ko ko mu am ci jazaawu lam ca am am ci ajuru lam ca am am ci sawaabu lam ca am loolu nag ngeen xam ko ci lii ma leen di bëgg a wax dafa am yoo xam ne mayu sunu borom mooy sanc ab dëkk mu doon ay njënd yu rëy rëy Ibrahima la ko sunu borom mas defal defal anbiyaaw yëpp dëkk yu noppi woon lañ ni la ca mooy nit deretam da koo ñor jur di joxe sëñ Tuubaa ci ëppale ñëpp. sallallahu alayhi wa sallam feeñoon ci noonu danañ def lu ëpp lañ def kenn mosu ko cee tudde doom sunu borom da koo terale mooy ki gën a ñàkk ci yonent yi inna tasawufa cheikh abdul xaadir jilaani moo ko ala bun ala arkaani ala samaani arkaanu mabnaahu ala samaani tasawuf moom ni mu ko firee moom mu ne saxal xalil yi da ngay tabe ne ibrahima wa rida isxaqa wa sabru ayuba alladi qad faaqa isharatun li zakariya kada gurbatu yaxya suufu muusa fa huda siyaaxatu bnu maryamin wa faqru sayidina almahmudi niama rabbu sëñ tubaa wax ne qad axbarat aichatun bintu latiq رضي عنه الله ما كان رفيق أن عيال المصطفى الهادي البشير لم يشبعوا يومين من خبز الشعير ak ni ko yàlla tëral su sallallahu alayhi wa sallam bu amee añ ak reer tey boo liggéey du ko am te moo gën ci nit ñi te bañ dëkkeeg moom duñ ko yekkal duñ ko woo duñ ko gaañ ba yut ko te duñ faj fab lañ amit ne ko jëlal ku ci sa kër neex danga koy woo na ko kaay kër gi neex na tey moom nag boo amee lu neex da leen di woo jox leen laay ji ñuy wax wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ba mu bëggee seet ba xam ndax dégg nañ ko daf leen a woo ak guddi jox leen aw ñam benn ndogu dagu ndawal mu teg ko ci ku ko daj jalax ko sa moroom ndax sa moroom nga ko gën a yéene ñuy lekk ñam ba doog ndawal ba des sallallahu alayhi wa sallam daal xam ne kon ñi lim leen di wax xam nañ kon nag bu soobee yàlla ci coobareem Sëriñ Tuba dikki fii sos fi dëkkam bii mu mel nii nga xam ne Sénégal gannaaw Ndakaaru moo fépp du lépp du gën te manees na ne màgg googu li muy réy réy fekke na ko ndax ay doomam fekke nañ mu toll noonu bu fekkee ne dafa jóg ñëpp bàyyi seeni ndey ak seeni baay ak seeni njaboot jóg topp ko ku jur tudde ko ku jur jox ko kujur jox ko ku jur tudde ko lu ñàkk jox ko ko te ñàkku nit nag lu metti la ci moom ndax sunu borom bañ na ko ba fu aw ñàkku nit dugg xolub kooka topp ko moo tax ñax yi lu mat a seet fañ koy jëme la loolu lépp kon liggéeyal na yàlla calam man liggéeyal sallallahu alayhi wa bëgg ko mbëggeel goo xam ne am na fu mu waxee ne dama jaayante ne bu muy bind ba ak si ciw turam lu ma ko bindee daa ñuul day xonq bu ma waree tudd aw turam it damay warangi ko ba jublu penk soog koo tudd waaye duma ko tudd jublu ci beneen xeb la te duma ko tudd te awmam jàpp am bis bi nekkee ci nattu bi bu amul daa bu xonq muy def bu bindee ba agsi ci turam mu tëb ko di ko fa ba ba mujj mu nekk stock bu rëy moom fàttali ko ne xanaa fàtte woon naa ne sama deret ji daa xonq mu daal di tàmbali bu agsee ci Mouhamadou ne cëpp mu xonq mu bind ko ci sunu borom di seetaan rek ba ca bisub ñaareel ba maam Cheikh Anta gone yum yónni woon jëndal sëñ bi këyit akida loolu woyof te kenn tegu ko ko kon nag bu fekkee ne dafay nekk te am leneen lu mat a wax sëñ Tuubaa mësut na kenn kaay ñëw mësta jóg na kenn kaay gunge musta wax kenn nit ne ko ñëwal ànd ak man léeg-léeg mu réer ci àllub tubaab bi sëñ Mouhamadul Moustapha gane na àddina ba Mamor Jaara magam tudd ko gisuñu sëñ bi gisuñu sëñ bi ba mu ñëwee fekk ñu tudde ko mu tudde ko boppam mu ne ko ku la tudde loo sama doom sa bopp indi leen liir bi mu ñëw mu tudde ko Mouhamadou Mouhamadul Moustapha moo tax ñuy wax Mouhamadul Moustapha sëñ Moodu Moustapha boo nee Moodu sëñ Maam Mor Jaara mi ko tuddee boppam la li ko sëñ bi tuddee nag mooy kii kon nag bu dee réer ci àll bi ba kenn du ko gis kon mësul ne kenn kaay noonu mësul ne kenn jox ma sottale yi lenn lu ne mooy jóg defal ko boppam te kenn ñemewu ko ba naan ko indi ma defal la ko mooy fab matt yi di ko teg ci fourne bi mooy kos almet taal ci ndax lu ne da koy waxee tur yàlla woo xam ne ataay ji bu ko baxalee bay fab warga wi di danaan wa innaka tibb la tahdi tibbati ila siratin mustaqim ñaari tibb yooyu lay lay lay def ci wargaam bu suukaree ne siratillahi alladi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard ala loolu loola ñi xam sax ne noonu la daal di bëriwul kon nag looloo waral du nangu kenn defal ko dara lépp moo ko defal bopp xasaay jii lim ciy wax ci kiimaan dana am lu ma fi leer ñi ko wër ñépp wolof lañ jànguñ te arab la koy def su noppee tëj ko ci gaalam kon loolu du propagande waxut wolof day làkk dak la koy bind tëj ko mboolem ñu ko toppoon gisuñu benn baytu xasidaam xasida yi ci mujj la tàmbalee feeñ waaye jëfam lañ gis mu dogu jëm ci yàlla te it ñoom it booba nag loolu lañ bëgg ñu jóg ànd ak moom kenn ku ne ak nam àndeeg yow kenn du tudd nit ci kanam kenn du tudd muy kilifa muy njorondaay yar na leen ba nga xam ne lii ngeen di dégg kenn mësta dégg ñu ne si xeex na ngir lu ñu wax sëñ bërigo bu fees danaan teg saa yoo duggee ci leeral ci xel doomu aadama yi ni toll ni lañ wootee xalaat bu boobaa wax sa xalaat la tudd wax sa xalaat nag gis ngeen ci rajo bi kenn du bokk ak moromal na muy waxee xalaat sallallahu alayhi nee na li fekk nekku leen di xalaat du ngeen waaye saa yu ngeen tàmbalee di wéyam xalaat réer ngeen kon sëñ tubaa lim jikkoo woo woon lañ mën a xam lim bind lañ mën a xam waaye kenn ku ne akum sëñ tubaam loolu it nañ ko gëm te doyloo ko sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen xam ngeen lu tax bi mu ne yàlla ma yónni ñu gëm ko dañ ko wóolu lu jiitu ñu di ko yónni buñ ko wóoluwutoon bu waxee dañ ko daan lu amul ndax daa jóge ci mu xunti ñëw di xam ne damaa gis yàlla jibril waaye fekk na ñu tuddee ko al amin nit nag boo amee ci moom seq seqatu moo gën a rëy imaanu ndax ki nga am ci moom kóoluteef lu mu la wax nga gëm nit boo amul ci moom confiance boo waxoonu dëgg it da nga naan gëmuma dafa am bis sëñ Tuubaa dégg ko ci njaar yi muy tëgg jóge ci foofu mu dëkk tëgg mi gën di jege di gën di jege ba yàgg mu ne loolu lu mu ñu ne ko Babacar Sarr samam muy tëgg te daa mel ne ci yow la jëm waaye fekk na sëñ bi xam ci sëñ Babacar Sarr loo xam ne xam nga lu mu see teg dane ndax bu ñëwee wax lu ci jublu xam nga loolu <laughs> bokkut ak lañ doon séenoo dañoo defoon dana Babacar Sarr ñëw sëñ bi ne woo leen ma ko mu ñëw mu ne ko lee wax loo ci jublu mu ne dangaa bari ba daan xeex ba daq te bëkk woo man nag mënumaa muñ loolu moo tax may bakku sëñ Tuubaa di ko ree di ko ree ma yàgg mu ne ko Babacar euh, danaa bàkku daa ñëwagul sama dëkk boobee di Tuubaa mooy sama bàkk ak sama jumaa jama cay def hmm. noonu la dem de su fekk xarqul aadati ak aadatu dafa bokk dafa bokkul ak may ak sañ-sañ yi dafa dafa wa anna al-fadla bi yadi llahi yuutihi man yasha te ku ne xam na ne moom yàlla nag li mu am moom mënta jeex waaye jox na ci sëñ Tuubaa fadlullahi moom sëñ Tuubaa am na wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yashaau it sañ-sañ yi dafa dafa bokk wa anna al-fadla bi yadi llahi yuutihi man yasha te ku ne xam na ne moom yàlla nag li mu am moom mënta jeex waaye jox na ci sëñ Tuubaa fadlullahi moom sëñ Tuubaa am na wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yashaau it ixtisaas nag mooy sañ-sañ fadlu mooy ak may boo boolee ak may akub sañ-sañ ak ñaan ba yàlla nangu ko ak la nga jëf ñu fay la ko ca dëgg-dëgg kenn mënta xam lii fu mu yem min alxadimi ila almaxduumi misaanu laa yantaxi ajrahu kaylum wa misaan tagg naa sallallahu alayhi wa sallam tagg goo xam ne la dañoo mujj dañ ma naan dékkal ñu sotti rek waaye nëttatuñ ko péesetuñ ko yooyu mbirum yàlla la day def lu ko soob te doomu aadama nag ba ko sunu borom di sax da ko daa bëgg mu defal ko mu def muy kéemaanam malayka yi mënuñoo def lu dul liñ leen digal doj yeeg garab yi duñ jóg fañ ne bu bindee nag koo xam ne wahadaynaahu najdayn imma shakiran wa imma kafaron daa bëgg loolu moo ko soob daa bëgg nit bi di lu lu dëgër bopp lu lu lu kenn xamut lu mu doon waaye moo bëgg lu mel noonu daa liggéey lu ne ba yàgg mu ne naa liggéey loo xam ne di dëgër bopp xam gi xam ne moo ko ciy liggéey nag moo tax nag mu demati ba ci biir yi jëfandikoo ci yërmande na ngeen sant bu baax bisu màggal bi bu dikkatee bu leen jéem lenn lu dul bigal nit ñi biggal seen bopp loolu la ci digle na nga daa jullee nag da nga niy jullee naka jekk li nga daa jàngee alxuraan la waaye li mu wax mooy nañ ma ci santle yàlla ci ay ñam li ko dale ci ganaar ba ci giléem feet la tudd feet du jaamu yàlla màggal feet la tudd waaw day sant yàlla ci lu ko yàlla defal lu ne la ci wax bi mu ko diglee da caa tege ne waaye nag na ngeen xam ne ama masachin ci la ma sunu borom xamal digale ne bu ma nangooti luñ ma jox nee na ma sama jumaa jee naa koy tàmbalee dajaleel nee na ma bul may naa la nga di ci jël lu toll nangam ba yàgg mu wàññiti ba yàgg mu ne ma mu ne nee na nee nañ ma bul ci jëlati dara ba yàgg mu ne nee nañ ma bum jaarati ci sa loxo ñuy foog xaalis bi di génn am na ñaari at yoo xam ne tegul bëtam ci ci liñ koy jox jumaa ji lépp a matoon lépp xaalis te daañu dem ba gis ne dana mas a toll fa mbëgg dëdul ne fa wax nanu sant bu baax a baax na imalu ala daawuda shukran waaye wa qalilun min ibadiya shakur soo jullee bu yàlla dindee kàttan gi mu la may ba nga julli doo dese dara boo wooree loo defal yàlla moo la may na ko def waaye sant nag sant dong la ab jaam am ci loo xam ne ci boppam la jóge jëm ci boroomam moo tax mu gën a màgg ci kawe yi dafa am bis ci kilifa yi ku ñëw ne sëñ Touba gàmmu gi weesu de def naa ci lii def naa ci lii def naa ci lii mu ne ko loo ci jublu mu ne ko xanaa delloo la njëkkal njukkal mu ne ko kon yàq nga sa yëpp xanaa xamoo ne loolu nga man maa tax nga man <laughs> kon mënoo ma mënoo maa fay moom kay neel neel def nga li ngay def waaye bu fekkee jubluwoo ci lu delloo mu njukkal moom mënta ne ndax maa tax ñu topp sunu boroom loo ko defal day génne bu génnee la la nga xam ne moo tax nga mën ko li ngay defee dana ñëw sant gën a réy ci jaamu yàlla innahu kaana abdan shakura yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo jéggal ma taqaddama min zambihi wa ma taaxar waaye day julli ba fiyam neew ñu ne ko loo ci jublu mu ne afala akunu abdan shakura xanaa danaa sant li ngeen ne defal nañ ma ko lépp looloo tax nag damaa war a sant li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxara du bakkaar bakkaarum mooy wala bakkaarum jumte déedéet diggante bi diggante escalier yi dox diggante jaam bi ak boroomam mi ngi toll ne ayatul quran yi noonu la toll bi dara ñëwagul biñ ko ne iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaana min alaq bis boobee la daal di gis ne lu tuut tuut gën na koo jéeg jëm ci yàlla moo daldi di yàlla ne ko fama na ma defe ni nga mel ndeke meloon muy benn jéggalu laay ñëwaat muy gën a jege yàlla di gën a gis ne bokkut ak ni mu foogoon toppoo ko toppoo ko toppoo ko ba ci inna fataxnaa laka fatxan mubinan mooy bi alquran mu soog a àgg ci sunu borom gis nag ne ndekete nii la ndekete fii la ndekete wala xad raahu bil ufuqil mubin wala xad raahu nazlatan oxra inda sidratil muntaha yooyu yëpp ay gën a yéeg la di dem waaye tuub bakkaaru fam tegoon yàlla te ndekete ba mu demaatee ba gën koo jege xam ne ne yàlla weesu na fii loolu mooy liñ koy jéggal kon ab jaam day dox rek di jëm ci boroomam te la muy am am loolee sant sant la def sëñ Tuubaa it mboolem xaside yi yi ñu defee ne day bàkku lam am moom xam na ne am na ko da koo am da koo am bi mu ko amee nag muy sant yàlla ci defal gi mu ko koy defal waaye loola xamutoon sax ne nit ñi daañ mas a dem ba gis ko qultu wa qasdiya taxaddusun bi ma lii qaadahu wala yuri nii niqama li may def lépp maa ngi si jublu waa ma bi ni'mati rabbika fa haddis liggéeyam bi nii la zikrullahi shukrullahi salaatu ala nabi madxuhu assanaaw ala allahi tawxiiduhu loolu yooyu la la jàpp di di ci def li muy def ba am li ma kon nanu xam loolu bu baax te jàpp ko na ngeen rafet njort bu baax bëccëg bii damaa gis ku ma nuyu takk ñu bari takk yu weex man xawma lu mu ba yàgg ma laaj am ku ma laaj ne ko luñ ci jublu mu ne dañ ne dëkk bi daa am poussière ma woo ci ñu bari ñëw ma ne leen bu fekkee ne lu ngeen gis ne poussière la di moo tax ma ne fartaqib yowma taati samaau bi duxaanin mubin yaxsha nnaasa haza azabun alim rabbana akshif anna al azaba inna muminuna anni lahum zikre waxad jaahum rasulun mubin summa tawallaw anhu wa qaalu muallamun majnun pënd si bérébu bi yàlla fu ngeen ko fi gisee ay malayka wàcc fa arsalna alayhim riixan wa junuudan lam tarawha wa jaala kalimata alladina kafaru sufla mooy ñi ko bëggoon a suul moom sëñ Tuba wa kalimatullahi hiya al ulya mooy sëñ Tuba ñu di ko suul mel ne kuy suulub takk ndeer saa yu ñu ci xëppee dara takk bi di féetewaat kaw ma ne leen ku ci noyyiwut poussière bii loola dal yaa ko teg sa bopp ku ci noyyi loola dal ñëwaat ne ma neel damaa sot dara du ci dal ni sunu borom bëgg a rey ñiy màggal si mel ne amut nu mu leen reyee wala bëgg leen a mbugal mel ne amut nu ko defee xanaa di di def pëndam daal di ne naa bàyyi buñ buñ buñ nooyee dootuñ ñibbi bu ko neexoon kenn du jug bu ko neexoon ku ne dee ci sa biirum lañ ñii dund ñiit bu ko neexoon suñu biir climatiseur bi la ñuy rey fekk na kon mën na leen bàyyi leen di wéyam xel tubaab yee def noonu innahu fakkara wa qaddara fa qutila qaddara summa nazara summa abasa wa basara summa adbara wa stakbar loolu lay tubaab loo ko wax bu jëf nii xalaat ko natt ko sunu borom ne waaye buuxul ma leen ak ni ñuy natt ak ni ñuy seet summa abasa wa basara booy tàmbalee wax ci yàlla ñu seen kanam bi ñuy gën di bàgg ak ñëw adbara wa stakbar loolu jullit du mel noonu jullit de jëfandikoo xolam tëj am xelam su boobaa saytaane mi nga xam ne ci ci waswasatu yu waswisu fii suduri naas nit du nattable nit du xalaat nit day gëm bil xayb te li ngay gëm nag doo ko gis maa kaana allahu li yazara almuminina ala ma antum alayhi xata yamiza alxabisa min altayib loolu moo ko wax nee na bala ma leen a bàyyi xam wax yéen dëggam déet dama leen di seetlu dane dama leen di seetlu ba noppi neeti ci wa maa kaana allahu li yutliakum ala alxaybi te du ma ne kenn dama lay seetlu xam nga loolu <laughs> bu ma la ne yow mii dama lay yónni mbakke wala njaareem waaye da dox fekk am na koo xam ne nee naa ko taxawal ci tëli bi yor oto bu la maam Ndiaye rombee nga dugal ko ci oto bi waaye duma la wax loolu dama la naan da dox xool na nag ba xam sama ndigal jaral na la doxam déet maa kaana allahu li yazara almuminina muminina yi lay wax de ne ñu weddi waxu leen ala ma antum alayhi xata yamiza alxabisa min altayibi wa ma kaana allahu li yutliakum it ala alxayb danaa leen seetlu te duma leen ne dama leen di seetlu moo tax nag boo gàntoo moo xam ne moo xam ne da ngaa boo nangoo mu daal lay xam te fekk na li loolu ngay séentu doo ko gis moo tax sunu digganteeg yàlla nan ko àpp fundul fekke fun fu xam du fa àgg nanu yàlla gënal sun bakkan nanu yàlla gënal sun alal nanu yàlla gënal sunu ber te bu boobaa duñ ñàkk sunu ber duñ ñàkk sunu alal duñ ñàkk sunu bakkan ndax yàlla dañuy seetlu rek li gën a rëy ci liñ jàpp ne ab jaam du ko amati mooy wax yu wa awxee rabbuka ila naxli xorondom du nit te da koy wax wa awxee ila ummi Moussa jigéen la te da ko wax yu wa id awxaytu ila alxawaariyina an aminu bi wa bi rasuli taaliba Seydina Isa yi gëmaguñu booba nee na maa leen wax yu ñu gëm Isa sunu borom lim yor lépp ak may la tudd ak coobare lu ko soob lay def waaye nag dafa am lu am wa iz lam yahtadu bihi fa sa yaquluuna hada ifkun qadim doomu aadama lu ko yàlla may mu ne mu ne mu ne lii am na ndax maa moom bu ko may ga teggee nag mu ne lii lii jaaxaan waxi sunu borom laa wax wa iz lam yahtadu bihi yéefar ya mu ne ko li tax yéefar yi naan ifkun qadim dañ koo mënta am wa id lam yahtadu bihi biñ mënta am lii ma def ci yow fa sa yaquluuna hada ifkun qadimun yooyu yëpp nag euh, téere yi buñ nu sànq xam nga lu wér alquranul karim bi jóge ci yàlla keneen ku wax xalaatam nga wax da wax sa xalaat la téere tudd wax sa xalaat 1970 laa gëj a yirub téere sëñ ma dem moo doon jàngal bi mu may jàngal téere bu ne moo may wax bi may dal mu agsi ci soxoraaw ma tàmbali ba yàgg ma ne ko man de damaa jaaxle ndax li may jàng yéefar la ba ma reyee nit ka ba ma tëddeeg jigéen ja ba ma naanee sàngara sa bu ma amoon ndigal day ba ko mu ne ma bàyyi jànguma ko ba jeex sama laka shawqun baadama kaana aqsara wa xallat suleyma batna qawwin fa araara kinaaniyatun baanat wa fi sadri wudduha mujaawiratan ghasaana wal xëy ndax lu ma jàng dama koy mokkal mokkal naan katu sàngara nag neexuma moo tax ma ne ko bu ma mun ndigal de ba ko mu ne ma bàyyi bisimilah mu ne ma kon dalal xalil ñaari xaaj bu njëkk bu mujj ñu tàmbali xalil ba ma jàng ca defe naa xaw ma ñaar buntu fàtte naa ko ma ne ko fii de danaa amatu lu may wax koo xam ne bu waxee ba wax bi daanu danaan fii taawilun taawilaani taawilaatun taraddudun aqwaalun qawlun lan laa mën a jariñoo ci téere bi mu ne ma wax nga dëgg ma ne ko ndax sañ naa koo ba mu ne ma bàyyi topp sa moroomum jaam moo xam ne xamoo lu mu la gënee ndax da nga koo dégg mu tax laa weddi li nga teg sa bët dofa koy def waxkati seeni xalaat lañ ngir juróomi ngir am juróomi dëgg mën naa am juróomi dëgg génn ga day am xam nga lu wér ñii seen maam lañ def nekk ci jamono ju jafe-jafe risque bu ne man la fay fekk nga nekk ci àll di tumuranke jaami yàlla yi gis la xam ne yow mi ci yàlla nga jëm ñu jóg topp la waaye diw def na téere kon naa def bu ko raw dañoo amoon jot jàmmit am booba waaye kuñ ci bu bal newun tuy ñu daw bu bu nu téere tee gëm leen war a gëm alxuraan nag mooy dëgg moom xadis yi it yu bëree bëri doon nañ ci dëgg waaye boo gisee ñu naan alxadisu saxee ak naan al ahadisu wax nañ ne kon am na ci wérul al ayatu saxiixa nag du ngeen ko dégg al ayatu sixa du ngeen ko dégg lépp lu ngeen gis ci alxuraan yàllaa ko wax waxi yàlla daal moom wax yàlla la bu neexee jëfal bu la naqaree jëfal loo fi gisaat nag xadis toppaat ci te du lépp comme bu nu dégg gënal gis nanu am la man de ñaari cër yooyu loolu laa ko bàyyi la mu soog ma ne ma ne ko kon bu may jàng mu ne ma mu kasful xijaab mu kasfatul téerab ilmu nujuum la boo xam ne sëñ Ahmad Dem kon defe naa moo ko def mu ne ma kon jàng ko mooy astronomie moom laa mujjee jàng ci moom والعربي إن جهلت ما مضى منه فأيام وأسوى الفرى من عجميك فكل ما بقى فهو الذي تطلبه يا منتقى topp ko noonu wasawi bayna qadamayka wamdudi qadamaka al-yumna li-yusraka fa-ayyu mawdi'in waqafta fihi fahuwa allati qad kunta taqtafi mooy boo bëggee xam xibla da ngay da ngay jàkkaarloog biddiw euh, bi féete nii ci càmm ci ci nii ba jàkkaarloog moom nga war a gis sa tànk bu ndejoor ba mu jub xoj bi ci des def nii mu ne la warangil sa tànku càmmooñ mu fekk bi ci des fa nga jublu mooy penk loolu loolu ma ne ko ji moom am na njariñ man man naa koy dégg taawilu taawilaatun taawilaani xilaafun taraddudun hmm? ba ma rey nit ka ba ma naanee sàngara yàlla tegu ko Hamsi yaa ngi fi yépp a ngi fi hmm? bu ko defee ñu baax ñi liñ def di gënu leen di dégg loxo te ñoom bu ñu demoon ba juum ci arab moo gënal yàlla naar ba gën a wax dëgg sallallahu alayhi wa bilaal bu ma saa noddu ashadu ji da day mel ne ko naan asadu biñ ko ko waxee mu ne leen asadu bilaal yi moo ma gënal seen ashadu ji nodd ñi ngay gis bilaal la ko fen lug wax yu niiwu koy kaay di noddi nii jëkk nañuy nodd ci béjjén mujj buy nodd danaan kaay leen di def nii loxo yi su ngeen gisee nodd buñ ne allahu akbar allahu akbar daal di wax ndànk ba yàgg ñu fittiwaat bu Bilaal Massa di nodd dafa am bis Omar ibn al-Khattab tuubagul ñëw ne ko yaa ngi yàq sama nelaw bocci jësi Bilaal ne xiim wàccal ci suuf ñaari Omar yooyu may wax koo ca fekk nelawut nga jox ko ko bi mu wàccee mu fekk ñëpp nelaw Omar ñëpp yi xaran ñoom ñaar mu ñëw ne ko ñoom ñëppay nelaw mu ne ko de ëllëg sa mu ne ko demal koo ca fekk mu jaaxaan nga sol ko Abu Jahlin dëteenu di nelaw Omar ibnul Xattaab jaaxaan ñu sol ko nuru iman te fekk na ba ci ba ci bëccëg gi takkusaan gi mu ngi mi ngi mi ngi wax Muhammad lu kenn xamul mu jékki-jékki rek ni ashhadu an laa ilaaha illallaah ca kaw fekk mu toog ba xel mi dikki mu daal di fàttaliku lim tere woon bilaal ak noddu mu ne li may jëkk def mooy dem ne ko noddu mu daal di ñëw bilaal bilaal séen ko boobu yoon moom dëpp bañ a ñëw mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko ku la ne woon bul noddu mu ne ko yow mu ne ko maa la ne noddal noddal ca kaw nag moo waral bu ñu doon wax ndànk ba yàgg ñu fittilaat noddu bi da suuniru suuniru loola la Seydina Omar moomu nag ngëm gi nga ko jox te jaaru ci Seydina Muhammadin lu dul ñaanal ko ko moo waral li euh, alxaqu maahum alxaqu maaka wax nañ ko ko ñetti yoon sallallahu alayhi wax na ko saa yu weranteeg ñoom ba alxuraan di koy ànd ak moom am na boo xam ne daf nañ man de Aboubacarin moom da bëgg yonent bi sallallahu alayhi daal di ne xeex bii nga nu sam say bokk rek lañuy rey xanaa mënuñu bàyyi rey gi tey def ku nanguwul ñu laaj la alalam ndax yow sunu borom xamal na la ku ne boo ko nee denc nga nangam bu ko joxewut bu dana ko joxe ñu waxtaan waxtaan abu euh, Omar ne man anduma ci loolu danga man danga yàllaa la ko waxam xalaat la mu ne gars yi tontu leen ñoo ko wax dëgg yàlla de dañ ko bëgg ma ne man anduma ci daal di toog fee balaay alquran ji wàccee maa kaana li nabiin an yakuna lahu asra xata yusxina fi l turiduuna araba dunya wallahu yuridu laaxira wala kitaabun min allahi sabaqa lamassakum fima axastum azabun azim azabun azim fakulu mimma ganimtum xalaalan tayiban wattaqullah laay ji def ne benn yonent bu sañ a dem di nangu yëfi jàmbur ci demut xeexe amut daa mel ne yéen poñatum àddina ngeen bëgg te man àllaaxira laa bëgg su ma su ma leen yërëmutoon li weesu danaa leen ci def lu metti kon nag jéggal naa leen li weesu waaye bu ma amati sallallahu alayhi wa sallam ni ne ko alxaqu maaka ñu demaat ba yàgg sàngara ñuy werante sàngara sàngara sàngara buñ ko waxee mu ne mën naanuma ñu ne ko gisoo nag ci alxuraan fu ñu ko teree laay ji jëkk a wàcc def ne yasalunaka an alxamri walmaysir qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima loolu terewu ko def ko ne euh, ñu ngi lay laaj sàngara waaye nee leen njariñ a ngi lor a ngi si lor ji ëpp ñu ne Omar loo wax mu ne naanuma damaa naanu ñu toog ba yàgg alxuraan ne laa taqrabu salaata wa antum sukaara bu ngeen di bu ngeen di julleeti bu leen man xam nga kon mooy waaye bu ngeen julliwul sañ ngeen ñu ne Omar xaana fii nag xam nga ne mu ne ma naanuma damaa naanu waaye bi alxuraan ji wàcce innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijisun min amali shaytaani fajtanibuhu daal di arrêté sallallahu alayhi wa sallam ne ko alxaqu maak yaa am suuratul muminuuna ñëw laqad xalaqna al insaana min sulaalatin min tiin summa jaalnaahu nutfatan fi qararin makin summa xalaqna nutfata alaqatan fa xalaqna al alaqata mudgatan fa xalaqna al mudgata idaman fa kasawna al idama laxman summa ansha'nahu xalqan axar Omar toll fee ne fa tabaraka allahu axsanul xaaliqin ci alquran waxugu ko alquran di wàccaat tàmbalee ci fa tabaraka allahu axsanul xaaliqin mu ñëw ne ko alxaq maa waaye leer gi daa jaarul ci kenn sunu borom da ko yeel da ko ko gindil boppam waaye li kiimaanu mooy Omar ak Sidni ak ñame gi biñ ne sallallahu alayhi wa génn na àddina ku ko war a dékku Omar a war am fit yi ndax ñame gi Omar a génn ne ku ko fi waxati ma rey Abou mi bëgg bay jooy fu tol moo jóg ne ko boo boo ko fi waxatee nga gis sunu borom ni muy ni muy kee dañ koo daal di ngir lim ko war a wut kee daldi di gëlëm te ki ki am fit dafa am bis benn yahut sallallahu alayhi wa sallam ameel ko borob tàndaram mu ñëw fekk ko fi mu toog mu ne ko yéen bani Hachim du ngeen fay bor waaye du ma jógi soli dàllam waaye bala ma fi jógi nga fay ko sama bor Omar daal di bocc jeesi ji ne ko bàyyil may ma ma wax ko ni ñuy fayoo bor yonent bi ree na ko déedéet wax ma may fay bor daldi ne nañ ko dajale ñu dajale lu toll ne li mu ko amee loon mu ne dolli leen ci loolu ni toll dàmpe ko ko ndax bi nga yëkkatee sa jaas yi tiitloo nga ko tiitaange ji nañ ko ko faj ñu dolli wàcce lu na toll yow dina ko dama doon seet ji koy yonent benn ci desoon mooy yonent du benn ginnaaw méroo nag ashhadu kon yooyu yëpp sunu boroom mu ngi fim mu ne te du fa mu ngi yori mayam te du jeex waaw boo yoree kaasu wiit di dikk ab taw kaas bi moom kaasu wiit moom gis ngeen ni mu waaye taw bi yëpp la boo yoree ab pot yaa yor pot la nga dikk daal yaa xam waaye yàlla moom mi ngi taw àllukaan da kay taw li taw ci kaw géej gi kon xam nga ko bare leen waaye ni ngay taateen nag ni ngay am yàlla noonu yàlla nu taatan taatan bu yaatoo yaatoo yaatoo waaw waaw duggaat ci biir taatanu sëñ Tuubaa gi te bañ koo génn yàlla nan dale ci moom yàlla nan dale ci moom yem ci moom ndax la ko jëkk ci noonu ci noonu la génn fii na murit boo gis lu ko dal mooy lam bàyyiwut boppam ak sëñ Tuubaa fala ko problème di tàmbali di waaye loolu bàyyeeg sëñ Tuba loola defam murit bu ne nun ñii mu fi bay lu yàqu ci suñu biir mooy boole ci ku ci bokkut ndax bi mu ñëwee da doon tànn ñoom fi bàyyi ñu ne da leen cee boole bi ci nit yi ci nit yi ci nit yi nit yi ordinaire boo baree xaalis nu fat la boo amee pouvoir nu fat la boo mënee wax nu fat la yooyu yëpp nag gàllankoor la ci noonu waxkat wi bala laa bàyyi ne la sa bay gënu la boroom alal ji lu mu am jox la te fekk ak lixóor la def boo xam ne balaa man ñetti fan mu ñëw ne la wax ci ci jàng tubaab nag lu mu gis muy mbooloo moom pour moom projet bu ñu war a organiser la ñu ne la defal fondation fondation bi ñu tëralal la ko noo xam ne doo mën lu dul bàyyi kook ñoom ñoo koy jariñoo yow nga ni tuddee te fekk yàlla defal na la loo xam ne man nga caa bañ a bokk sëñ bi li nu yàlla defal dañoo judd fekk ko gënuñu nit yi te dañuy ñàkk dinu nu jox gënuñu nit yi te dañuy ñëw dinu nu liggéeyal ku ci faatu ñuy siyaare fañ la suul xaalis dafa génn bu toll ne bañ la doon jox lii nag ku ko am war nga koo xam. te kenn du mënu la koo xañ te kenn du ne maa la ko jox sëñ bi nag bu jënt luy lépp lu dara dafa am kon nag ñàkk fayda gi lu ko war a andi ah gi lu ko war a andi fàtte suñu bopp gi lu ko war a andi ah nan xam li yàlla defal xam li la yàlla defal nag bokkut ak bew bokkut ak yabaate bokkut ak tooñ tooñ moom ku koy def doo mucc sëñ Tuubaa dane du ma leen ne bu leen tooñ dama ne bu leen fayu sëñ Tuubaa dane bu leen fayu ku dul fayu dana tooñ waaye nag nan xam sëñ Tuubaa nag feneen it nañ xam li leen yàlla def foofu la wax bi nag waaw bëgg dara lu dul li nu yàlla defal jërë ngeen jëf ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار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 bismillahi irrahmani irrahim salaamun ala nuuhin fi laalamin salaamun ala ibrahim salaamun ala muusa wa haaruun salaamun ala ali yaasin wa salaamun ala almursalin salaaman salaama bardan wa salaama subula salaama subula salaama subula salaama إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaam